Eh, Cheikh Ndiaye ñan ñi diko wax petit. Ah, waaw petit tey dañu assister à Thiès. défilé xaj. ñu bëgg rek nga wax ñu lan moko waral lan ngeen ci yaakaar ak lan ngeen ci wut. waaw ñun bu jitu dañuy nuyo ba paré di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp surtout rawati na ñi tew ci randonnée bi parce que dañu nek ay jeunes ay nit ñu nek Thiès. maanaam di yëngu ci wàllu xaj di yar xaj ñii pour garde ñii pour seen bëgg-bëgg donc euh, ñu ne jot na tey ñu génn am na ñoo xamante ne am nañu xaj xamuñu lan la ñu wareel ak xaj yi suñu génn yaakaar naa ne pour dajale la woo képp ku dëkk Thiès bëgg xaj di yar xaj donc euh, as ñu ngi tudd boo xoolee suñu slogan mu ngi nekk les amis nos donc tey nous les Aminochiens pour loolu la woote képp ku bëgg xaj yaa xam pour mu lay gardal yaa xam pour leneen mais daal dañ ne képp ku bëgg a xaj xaj nag moom newuñu kese xaju raas parce que am na ñu nekk seen kër bëgg a xaj li ñu yor ñoom ñoo xam mais bu ñu ñëwee tey ci ñun adhéré dinañ leen wax lépp li war ci loolu nan la ñuy téye xaj bi ak lan moo war mu nekk ci cadre vaccination moo jiitu toppatoo bi door a ñëw. parce que yaakaar naa ne ku yor mala di nga ko dundal e war nga ko ñaq vaccin bi aussi loolu la e boo xoolee tey am na ñu bëri bëri bëri yaakaaruñu woon ne lu toll nii ci xaj am na Cees te gëm naa ne am na lu ko ëpp am na ñoo xam ne génneeguñu seeni xaj parce que euh, xamuñu ne lii existé na donc euh, ñun dañuy wax rek ne génn bi ñu def pour woo bépp nit bu nekk biir Cees la. alors petit bu ñu jàppee li nga wax léegi bëgg-bëgg ci xaj yéen ñi di ko jël di ko def euh, ab euh, gardien maanaam wëtu kaaraange bëri na fii ci suñu dëkk mais tey ana moo leen dugal euh, ci xaj ba nga xam ne tey jël ngeen xaj teg ko fii li nga wax sànq ay vaccination wax kaaraangeem wax dundinam mais tamit nga wax ni race yi nga xam ne tey ñoo bokk ci randonnée bi yan yan la yan la. waaw xam nga maanaam boo boo déggee ñu ne ñii ñi ngi yar xaj pour diko garder man personnellement ak ñeneen ñu fi nek mën na wax ne xaj dafa bok ci ñom dañu am dañu xaj dafa am wal ci euh nit nak boy wax do wax ci cadre yow kese parce que ay nitama a mo nek ma nekk seen wala seen kanam ñom ño xam ba tax euh, ñu jox ma cadeau gi donté euh liñuy wax rek euh, xaj yi bari nañu ras

nit ñëpp comme ñu ko waxee ci njëlbeen rek dañuy woon nit ñi ñu ñëw adhéré xam ne mbir mi seen mbir la du du du petit moo ko moom wala cheikh wala keneen ak keneen ku ci nekk parce que dañ ne nos amis les chiens nos amis les chiens nag euh, yaakaar naa ne képp koo xam ne am nga ci yaa ngi ci biir. Euh, petit euh, wax tuuti li nga xamante toujours. mooy seen bëgg-bëgg ginnaaw seen génn gi tey démonstration.

Euh, ñii yor nag xaj nekk euh, mu am euh, les croisements comme niñ ko tëj tuddee wala xaju ordinaire yi ordinaire maanaam ñun niñ ko jàppee mooy les ras yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi race la tamit am na ay races yu nekk ci biir dëkk bi yu sosoo fii xaj yi ngay wax ne dafa cher lu ci ëpp da ngay xool ku jële bitim réew sa xaj indi ko mu ñëw nga paasal ko avion fayal ko euh, vaccination yi nga ko war a defal yëpp indi ko ba Sénégal yaakaar naa ne am na prix bu mu coûté te loolu boo gisee tamit nit ñi il faut ñu conscient ci benn mbir ku bëgg lu baax foog nga def lu baax. tey euh, uh-huh. euh, question bi dina ma neex ma tontu ci am nañu ci biir groupe bi ñoo xam ne. macha allah ñu ngi importé maanaam ñoom ñu ngi jëli ay xaj bitim réew di ko indi pour ñi mënul dem ñoom bu ñu indee ñu mën leen ko jaayaat euh, ci njëg bi dafay varier ci euh, wàllu race bi nga bëgg moo tax kooku nee na dafay bokk ci.

ñu ngi xalaat ci walu ci walu bobu li nga wax aussi sank muy que kuti bu ndaw xaj bu ndaw sio amna ñuko ñu bitim rew wala ay xaj umak yoyu pissé nañ leen déjà donc ñu ngi ci bir kuréel bi batay euh li ñuy mbébét bari na mun ñu taxaw fi di wax lepp euh yaakar ne moo ñu ne li bees bees la suñu genn bu ñëk la euh, li waral genn bi dañuy woté juste genn bi looloo ko waral muy wax nit ñi ne li amna na ñu ñew bokku ci fekke ci ñu ñu mën a xool lan moo ñu mën a jëmale kanam waaw léegi nag euh, yaakaar naa ne par rapport ak loolu yëpp am na ñoo xamante ne ñu ngi fi bokk ci association bi wala bokk ci kuréel bi comme li ma njëkk wax ñu jox leen kàddu ñoom du ñàkk ñu am luñ ci mën a. appel ngay lancer autorité yi tey parce ku wax kuréel rek da wax këy. waaw maanaam da nga mu formel. Mhm. am fu muy mhm. euh, les éleveurs intensifs. waaw gis nañ fi yeneen mhm. euh, leen di wax li ñu leen di wax pour jëmale ko ci ñun wala ñun ñu jël ko jëmale ko ci ñoom yaakaar naa ne lu lu lu lu simple la.

ñëpp daal maanaam nañ def ñëpp rek incha allahu rabbi jërëjëf. voilà. waaw bëgg nga wax ñu yow euh, lan ngay représenté tey seen kuréel gi. Mhm. ak tamit lan moo la boole ak xaj. Euh, bon tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp en commençant par yéen ñi nga xamante ne yéen def couverture bi di nuyu ñi fi teewlu ñëpp bon association bi luy soog a tàmbali la. comme sank ni ko Cheikh waxe manam kep ku bëgg xaj tay jii so amone sa kër luy wax mbow rek tay jii bok na ci li ni donc lolu mom moy donc euh, fi may tàmbalee euh, au passage aussi maam lo xamantene ne ko faté di am ñu ñuy nuyu mom moy association canin Sénégal parce que lii njëkkewuñ ko Sénégal am na fi donc njëkkewuñ ko Sénégal té xalaat nañ dina dem ba am dëkk yëpp aussi là aussi lolu lañu bëgg donc man je suis le secrétaire général donc de de de de l'association xaj li ma booleeg moom moo xam naa moo ko ñi fi nek ñëpp pratiquement. maanaam bi ma nekkee xale ba léegi dama yor xaj comme pratiquement boo xoolee ñu fi nekk ñëw am na ñoo xam dem nañ ba nekk mag yore ko sax mais lii lañ koo bëgg c'est-à-dire que donc lu moom moo ñu boole tey parce que bu ñëpp bàyyee par exemple li ñuy def bàyyi seen yitte yëpp ñëw ay magum jëm jëmm dox mooy dañoo bëgg xaj. léegi waaw xaj bi tugal tugal waaw ak. Euh, xaj bi xaj xaj bi fii la juddoo. fii xaj bi fii la juddoo. Euh, chien de race ñuy wax man sax loolu xëy na du ma ci du ci xaw a sori tuuti ndax xaj fi nekk yëpp ay chien de race maanaam kii xaj bi kani corso la bi kani corso lañ koy wax waaw moom itali ñoom Italie lañ jóge waaw seen origine maanaam itali la ah moom mi ngi ci ñaari at la yor fu mu nekk nii nii waaw dund gi alimentation xaj am na ñu bari ñoo xamante ne xamuñ ci lu xamuñ ci xamuñ ci lu bari mais maanaam kii lépp lay lekk lépp lay lekk. lépp lépp loo xamante ne lépp lay lekk lépp da koy lekk xaj tamit comme nit la rek. maanaam ci li koy yar ci li nga koy tàngat ci loolu moom lay wéyee. alors tey ban yëg-yëg nga am bi nga gisee am na yeneen euh, am solo. parce waaw non kontaan. c'est-à-dire que ñun ñëpp ñu fi nekk dañoo kontaan vraiment man euh, blague à part man man man man damaa kontaan te xam naa ñu fi nekk ñëpp kontaan nañ suñ objectif atteindre nañ ko parce que tey ñii li ñu boole ñun ñëpp ñu bëgg ko moom moo ñu moom moo ñu fi indi mais kontaan nañ vraiment donc kontaan nañ di remercier aussi ñi fi ñëw ñëpp ah ñuy remercier tout le monde bàyyiwuñ kenn am na ñoo xamante ne dañoo jógee ba Pout pour wane ne Thiès gi yëpp la am na ñoo xamante ne Pout lañ jógee suñu mbokk yi waaw non ah, la sa ko waxoon département mais léegi dem nañ ba maanaam région de Thiès moom la ñuy wax parce que am na ñu jógee Mbour tey am na ñoo xam dañoo jógee Pout donc te di xalaat nañ ne tamit dina gën a yaatu parce que moo ñu soxal xalaat nañ ne dina gën a yaatu donc ba wër Sénégal gi yëpp daal abon ah man Samba laa tudd fii laa dëkk Thiès bon tey jii liñ def euh, xëy na peut-être bon benn première pas la pour wane ne aussi euh, xaj yi aussi lu am solo la parce que am nañ njariñ torop voilà effectivement te am nañ am nañ njariñ torop am na am na njariñ torop pour pour expliquer nit ñi pour expliquer waa cees xamal leen njariñ li xaj am ñu bare bari fi ñu toll nii ñoom seen euh, mentalité xëy na peut ci xaj daal buñ ko gisé rek dañ ko wara wéx té gis nga leen ni bo leen té gérer leen mettre leen dans de bonnes conditions da ngay am un vrai chien de compagnon en plus da nga am aussi lu watul sa kër wala ya xam sa tool la donc yooyu yëpp lu am solo la lo xam ne nii peut-être xeyna lu bees la fii ci Thiès mais dañuy ñaan yalla gën ko wan nit ñi ba di dem diko présenter partout euh, au Sénégal pour nit ñi xam njariñ li nga xam ne nii la xaj am ci société bi voilà. Ah. Ah. Mhm. Mhm. mais ñuy wax. waaw ak pour ñu lëkkaloo. pour ñu mën a àndandoo ci lu bari. gis nañ ko ci Sénégal ni ñu doxee. mooy ku ne fa nga yëngu da nga def nekk kuréel. di gën a diisoo. di gën a waxtaan. gën a améliorer seen liggéey. Mhm. donte euh, ni tey bëggeel ba ci dugal. ak mais est-ce ni mel. tey li nga gis le premier pas. jàpp nga ni euh, yaakaar euh, dal effectivement non xel dal na ci bu baax a baax parce que boo gisee comme tey lañ njëkk a woote te gis nañ ñi ñëw donc vraiment loolu am nañ yaakaar ci ne lii dana gën a yokku te bon ñun suñu objectif du questionner rek dañuy yor benn xaj rek kii dañoo yor dañoo créer fii élevage kanin Thiès ah ñu tuddee ko le lion noir boo xam ne nii. bon nit ñi ñu bare bare dañ fay ñëw uniquement pour di visiter duñu laaj ay conseils ñun aussi dafa am benen euh, pas bo xamé ni mom lañ bëgg a doxal ci biir association bi moy di expliquer nit ñi du question ne di leen wax vaccin yi ñu wara jël dañ leen a war a aar parce que am nañ ay vaccin yoo xam ne war a jël parce que am na sax journée de la rage boo xam ne c'est une journée mondiale yooyu yëpp aussi dañ ci bëgg bu amee ñu teew présent pour conseiller population bi xam leen xaj yi dañ leen di war a vacciner mettre leen en jour ba nga xam ne nii vraiment dañuy nekk en bonne santé ba nga xam ne dégâts yu bare bare bare ñu ngi koy dégg bu bañ a am fii suñu réew voilà merci. waaw El Hadj Badara. El Hadj Badara. Mm. nekk ci bopp kuréel bi ngeen waaj a samp tey ngeen jëm def ak euh, maanaam ab doxantu. ko xaj ñu nga wax ñu lëkkale ak euh, seen mbëbët bi doonte ni say naataango jaar nañ xaj ban njëriñ euh, kontaan ba mënuma wax sëñ bi parce que lii nii bu ñu koy def Cees a tax ñu def ko. parce que da da dem ndakaar si boppam ah da ngay gis gars yi manko def association bañ ko defee li yàgg na yaa ngi dégg Ah, nga gis façon xaj bu ne ñun dañ doon dem di ko jëli Dakar di jëndi fofu di sonn man du ben du ñaar dem naa Dakar jëndi fa ay xaj mais instant bi nii ma wax nii ni ma toll nii gars yi nyoi ñi fi romb jàll ñooy importer xaj yi jëlee ko Europe ñëw jënd ko indi ko dagal ko mu ñëw. ah prix xaj waaw ah bi si gën a yomb de xam naa ne deux cent mille waaw. am na non am na am na les races de boyer comme yi fi nee nii boyer bul yi jàppal bàyyi dañuy jar lu ëpp loolu. waaw waaw. waaw am na am na am na franchement am na. non amna parce que élevage ñi fi bari fi ñi fi né ay éleveur lañu amna ño xamni ñom dañu passionné xajalé neex ñi ñi kii ko mais amna ñi ci si comme man éleveur laa damay élever j'ai beaucoup de races waaw euh, franchement waaw. moi j'ai ah ah si gàttal rek am naa loo xamante wala six daal. alors euh, li nga xamante ni ban ban moo waaw di tëjee rek di tëjee rek euh, xam nga man vice président bi la président bi newu fi di tëjee rek ni kontaan naa tey lool lool parce que lii nii daf ma dépassé defoon naa ni affaire bi sax du du du ampleur bi du ko am mais franchement xol seet na lool lool lool lool lool franchement te xam naa ni lii dina jëm kanam lool tamit.